dañu constater ben problème de santé publique ci biir troisième bi mooy euh, les risques yi nga xamante ne euh, gis nañ que mu mën a causer ay accidents yu bari alors ñetti point yooyu la leen bëggoon développer donc bi ci njëkk mooy centre pour les personnes handicapées ñun dañu amoon benn association ba nga xamante ne créé woon nañ ko depuis 1999 alors association boobu mu doon yëngu ci affaire éducation affaire santé bi yalla defee ñu bari suñu tukki man mii ci euh ñu jëlé fa xam-xam ba nga xamante ne inspiré ñu pour que fi ci biir yof gi ñu dëkk ñu créer fi ben centre pour les personnes handicapées alors bi lolu amé, ñu ne duñu ñëw rek euh, commencé te ñu maire bala ñuy def étude bi C'est la ñu un courrier au maire jaar fi ñu wara a jaar mais musuñu am réponse de sa part

si ay problème de santé yu grave parce que naka lañu ñu mën a nettoyer dëkk bi te amuñu benn jumtuwaay amuñu benn matériel du masque du dara en plus ñu koy def sous le soleil ngelaw li di jóg ñuy wannaat pro euh, microbe yooyu mu leen jox feebar bu ñu feebaree ñu yóbbu ñu indiwaat ñeneen ñoo ñu feebar mais bu yàggee dëkk bi ñëpp dinan feebar te defe naa ne liggéey boobu ñu ko woon pour que nit ñi di feebar

loolu lépp ma jàpp ne lu ñu waroon a mën a toog waxtaan la beneen bi si gën a doy waar mooy que dañu constaté ne léegi nii kër yi nga xamante ne nekk nañ si booru tali bi yëpp ay magasin la ñu def si seen buntu kër yi ay magasin maintenant magasin yi dañuy ubbi waat si seen devanture mu ñëw si kaw tali yi oto yi ñëw gaare si kaw trotoire bi euh, piéton yi war a jaar léegi qu'est-ce nit ñi dañuy bokkanteek

verre da fay ñëw ba ci trottoir bi ñi di jaar te fi nit ñi carax lañuy sol bu ñuy dox alors tesson de bouteilles, tes tesson de verre yi nekk partout wa léegi yow boo jaaree ci devant devanture magasin euh verre dag sa tank ba nga deug kan moo lay jël en charge kan moo lay faj loolu nekk aussi ben problématique ba nga xamné waron waroon ci tok ñu réfléchir ñu réglementer les choses donc xoolal activité yooyu yëpp nga xamante ni danse na si mbedd yi magasin yi bare dafa de créer benn ambiance si biir dëkk bi nga xamante ni, euh, dafa dafay créer benn distraction si génie, yi si nit ñi tout le temps les gens nit ñi dañuy am envie nekk si mbedd mi di distraire donc même nit ñi duñu mën a concentrer wu sur des choses yi nga xam ne yu am solo yu am importance la alors que y a beaucoup de problèmes alors que nit ñi war nañ ci mëna concentrer au lieu au lieu que tout le temps ñu nek ci mouvance bi xumbaay bi mumbaay bi alors que problème yaa ngi nii fa deug yalla jotna ñu waxanti deug jotna ñu défar suñu réew jotna ñu défar Sénégal donc ñun point yoy lañu ñu pour tok ak mairie bi mo nga xamné mom moy institution bi waxtaan ak mom ensemble ñu trouver ay solution mais mënoo leen wax ak ñom mënoo leen jot nous on trouve que c'est c'est anormal du lu yoon alors que ñoo leen fi tek eh, kon nak wayof lool la amone di attirer cette attention kenn ku nek na se réfléchir parce que dëkk bi ñoo ñoko bokk ñi fal ñi fi nek ñi leen falul yëpp ñu ñoo bokk moom suñu dëkk donc li kay défar si ñun lay jugee kon lool la amone si di leen wax ngeen xalaat si eh, di leen jéggalu si kàddu yi ma yëkkati di leen wax ba beneen yoon inshallah